li waral jotaay bi nag dañoo jàpp na ñun waa SUTSAS syndicat unique des travailleurs de la santé de l'action sociale ginnaaw conseil des ministres bi weesu gouvernement di Sénégal weer kot bi nga xam ne ñi ngi jooy suñu camarade Sidya Ndiaye te suñuy ronqañ feragut dañoo jël benn décision boo xam ne jàpp nañ ne bokkut ak la ñu juboo woon ak ñoom 2014 te accord yi mi ngi fi ñeenti ministre de la république ñoo ko signé woon ak SUTSAS accord yooyu lu mu waxoon te accord yooyu juróom ñaari at lañ ko topp di ko gëstu ñu ànd ci ak actuelle boom ñuy wax bureau organisation et méthode bi nga xam ne mooy gunge bépp ministère ci structuration ak organisation ci lañ jàpp na léegi comme dañoo nekk ci ministère de la santé et de l'action sociale structuration boobu dañ ko war a gis ci démembrement bépp mu feeñ ci structure pyramidale sanitaire ñu ne donc buñ jógee ci ministère bi ci région yi dañoo war a am direction régionale de la santé et de l'action sociale direction régionale de la santé et de l'action sociale boobu day yombalal liggéey bi ndax su boobaa gouverneur bi benn interlocuteur lay am ñu xam ne kii moo représenter ministère de la santé et de l'action sociale ah ginnaaw conseil des ministres bi nag lu ñu gis dañoo gis ne madame le ministre daf ko daggate daggate bi mooy dafa créer direction générale de la santé ci wet gee ca wet ga ca des mu créer direction générale de l'action direction régionale de l'action sociale loolu nag dañoo jàpp ne bokkut ak li ñu jubóog ñoom donc dafa ñëw violer accord yi nga xam ne moo tënkoon gouvernement bi ak SUTSAS dañuy laaj ñu ne ndax lii xew ci conseil des ministres bi président xam na bu baax fan la jóge ak li ko waral ndax jàpp nañ ne bu xamoon li ko waral du nangu ñu def loolu ndax jàpp nañ ne kat moom nga xam ne moo jiite sénégalais yépp te muy woote tout le temps un climat social apaisé war na mën a yamale agent yépp mais surtout li nga xam ne dañ koo juboo juróom-ñaari at ñu di ci waxtaan di ci waxtaan ba juboo ci tey jii moom la ñu waroon a màndargaal waaye ci fan yu waxtu yu néew ñu changé ab décret boo xam ne bañ koy changé kenn xamut yan condition lañ ko changé ak kan moo tax ñu changé ko ak kuñ ko changé ndax boo seetloo mbir mi ba ci biir dafay mel na dañ koo féetale ci benn corporation may fàttali sénégalais yi nag ne ministère de la santé de l' sociale ay catégories socio-professionnelles yu bari ñoo fa nekk te ba ñu d' accord ci accords yi dañoo waxoon ne direction régionale boobu de la santé et de l' action sociale képp ku nekk hiérarchie A war nga koo mën a jiitu jiite ndax kat région médicale du fu ñuy fajee district sanitaire du fu ñuy fajee nous sommes dans une approche santé publique nekkuñ ci ministère médecine ndax dañoo jàpp ne bu fekkoon ne dañoo toog rek di faj dina gën a métti dañoo war a fexe ba ñiy ñëw di faju ko dinañ néew en mettant l'accent beaucoup plus sur la prévention et la promotion loolu nag approche santé publique du approche médecine dañoo jàpp ne kat ministre bi fii lii muy doxalee ba mu fi ñëwee ba léegi li ci ëpp dafay privilégier benn corporation médecin yi nag luñ leen fay rek mérité woon nañ ko du ñun ak ñoom ndax suñuy naataangool ñoo bokk fi ñuy liggéeyee waaye kat fu ñu yokkalee médecin téeméeri junni ak ñeen fukk yeneen koor yi des ka ca ëppale ka ëppale bu motalee ñeen fukki junni ca la yam ñu jàpp ne équité manqué na foofu ndax ci ñun am na ci ñoo xam ne am nañ bac plus 6 am na ci ñoo xam ne am nañ bac plus 5 buñ demee nag ba nga xam ne ñii nga xam ne ñoo topp ci médecin yi buñ leen yokkalee téeméeri junne ak ñeent fukk waroon nañoo xool ñeent fukki junne yi ñu yokkal ñu ci des ndax néew na loolu lépp ma fi lim daf ñuy wan ne kat madame la ministre nekkut ci yoonu apaisement te kat ñoom ñoo ñu woowoon nañu ah xeex bi métti na lottu nañ feebar yu nga xam ne commencé woon naa réer commencé ñëw ñuy ay patriotes di ay sénégalais ñun ñaan ñun njëkk ñu jël suñuy xepp sànni wuñ ko mu réer ci àll bi fañ ko denc xam nañ ko te soriwul te kenn ku ne ci ñun fa nga ko denc xam nga ko donc buñ jubloo buñ continuer ci perspective bi ah dinañ dem jëliwaat suñuy xepp def li nga xam ne moom la ñu ñëpp xamee. te ñun fu ñu gësamee dana watt te fu ñu gësam dana yëngu ñu jàpp ne bala ñoo egg foofu dañuy ñaan président de la république son excellence mu xoolaat mbir mi te kenn ku nekk ñu jox ko wàccu waayam te li nga xam ne juboo woon nañ ko ba mu indi apaisement indi un climat social apaisé ba ñëpp dellu ci liggéey bi buñ ko changé wala it bu ñu koy changé ne nekk loo xam ne dañ koo toog waxtaanee ko juboo ko waaye toog ba mu neex la ñun parti prenante yi di partenaires sociaux yi nga xam ne ñoo ko négocier ni ngeen ko yëgee lañ ko yëgee communiqué conseil des ministres ñu ne madame la ministre changé na lépp waxtaanu cee kenn defu diisoowu cee kenn te bokkut ak la nga xam ne juboo woon nañ ko juboo woon nañ ko ak ñoom loolu nag dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam te nag ñun li ñu yoon may xam nañ ko mën nañ ko te xam nañ nañ koy defee ñuy ñaan nag mu bañ a yegg foofu ndax bu fa tollee ak bu ko laajee ah, dinañ ko def waaw loolu lañ waxoon ne nañ ko nañ ko nañ ko euh, partagé ak yéen ngeen xam li waral suñu jotaay bi fii tey ak yéen